mbokk internet Yaatal Vision da leen ak jàmm ci xibaar bokk na ca nag naqar yi nga xamante ne bii moom la askanu Ngor ak la ko wër di dund fi mu toll nii ca seenu suuf soo xamante ne bii dañ ca bëgg a teg loxo loolee nag ginnaaw nag ay jàmmarloo yoo xamante ne bii yàgg nañ ko faa nemmeeku waaye nag jàmmarloo yi nga xamante ne bii mi ngi amoon foofee ca Ngor ki démb. gën na fa indi fitna ndaxte kat ay doomi aadama yoo xamante ne bii ña nga cay jëlee ay gaañu ñi ñàkk ca seen bakkan ca suuf soo xamante ne bii ma nga amee foofee ca diggu ngor loolee nag ba mu amee lenn ci gendarme yi dafa am ñoo xamante ne bii ñoo ca ñoo fa bëgg a def seen benn makkan loole nag doomi ngor yooyee ne du ca dal benn yoon ndaxte suuf see seen suufu su maam la seen moomeel la te it am na yeneen i mébét yoo xamante ne bii moom lan fa amee jàmmaarloo ya daal di tekkarnaase ci diggante takk der yi ak doomi ngor yooye ba ca nag mujjantal ga <clears throat> la am nag ñoo xamante ne bii jot nañ caa ñàkk nag seen bakkan ñenn ñi nag jot caa jële nag li nga xamante ne bii moo di ay gaañu gaañu leaderu Pastef bi nag di Ousmane Sonko moom nag mu ngi naqarlu li nga xamante ne bii moo xew foo fële ca di eh, eh, nit xamante ne bii ñàkk seen bakkan ak ñoo xamante ne bii jëlee ci ay gaañu gaañu Ousmane Sonko li nga xamante ne bii yëkk na ko ne ay kàddu jëmale ko ci xew-xew boobule. Ngor ñu ne nag dinañu ubbee waxtaan bi ci loolu gannaaw bu ñu gërëmee sant suñuy naataango leaderu Yewwi Askan Wi nga xam ne. tey def nañu waxtaan wu am solo waxtaan ak sénégalais yi te jëmale ko ci suñu jëmm daal di feddale kóllëre ak xaritoo waaye surtout feddale diggante te nga xam ne moo dox si man ak ñoom ci ab wuur boo xam ne day xëccoog askanam suuf soo xam ne matul sax hectare gën saa bari ne nañ six mille mètres carrés la mu koy xëccook askanam ba mu jar violence bii nga xam ne ñun ñëpp gis nañ ko nguur goo xam ne day xëccook askanam lu tuuti ci suuf gannaaw bi ñu xañee askan woowu suuf su bari soo xam ne seeni maam ak seeni maamaat amoon nañ ko ba tey soo demee Ngor nit ñaa ngi dund ci xat goo xam ne ndax fami yi màgg na yaatu na ñu dagg suuf sépp séddoo ko ak jaay ko ba tey tuuti leen dese woon ñu amoon mbébét def fa ay projet ñu leen loolu du fa amee nguur gu ñàkk yërmande ci askanam ba loolu andi lii nga xam ne Sénégal yépp a ngi koy gis àdduna bi yëpp di ko gis muy dal ci kaw sa population nguur goo xam ne lenn rek la xam digganteem population bi mooy ku yëngu naa dal ci kawam naa ko tënj naa ko gaañ loolu yépp na ñu teg ko ci force restera à fàtte ni nag force restera à mooy doole day dellu ci